juróomi mbir a ngi yoo xamante ne maanaam cinq choses yoo xamante ne njaalo daf koy waral avant lool su fekkee abone go ci sama chaîne YouTube bi maa ngi lay demandé nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo soo ko mënee di partagé tamit ba keneen mën see jëriñu nga partagé ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na addaalu alal xayri ka faa'ilihi ki nga xamante ne mooy tegtal lu baax moo ki koy def ñooyam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen baax di leen ziar di leen ñaanal jawab fu ngeen mënti nekk di ko sàkku si yéen tey nag ñu bëgg a wax ci li nga xamante ne mooy njaaloo ay loraange yi nga xamante ne njaaloo am na ko nekk ay loraange yu bëree bëri nag mais nag tey dañ cee tànn lu mat juróomi loraange yoo xamante ne njaaloo am na ko di jégalu bu baax nag ci raar yi nga xamante ne moom la ñuy raar fan yi nekkoon ci ay ay mbir rek moo taxoon mais dinañ wax incha allah dinañ ñëwaat bu baax a baax di gën a góorgóorlu di fàttalante yenn yi nga xamante ne mooy diine dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle yonent bi sallallahu wax na ci li nga xamante ne mooy njaalokat mu ne laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min mu ne njaalokat bi de heure bi nga xamante ne wala saa soosu noonu nga xamante ne si lay njaalo mu ne nekkatul jullit kon nga xamee ne njaalo nekk na loo xamante ne lu garaaw a la donte ne ñun suñ société bi ak suñ rawatina ñi nga xamante ne ñooy jeunesse beeg ñu ni mel dañ ko xaw a yombal lool te dafa nekk loo xamante ne lu garaaw a garaaw yàlla bañ na ko ba bi nga xamante ne moom lay wax ci njaalo waxul bu leen njaalo dafa wax laa taqarabu bu leen jege li nga xamante ne moo parce que moom xam na li si nit xam na ne nit dafa mën a werante te su waxoon ne bul njaalo rek da nga gis nit ñoo xamante ne peut-être dinañ jege njaalo dinañ def ay mbir yoo xamante ne dinañ jege njaalo ba soo waxee ñoom ñu ne la ah yàlla njaalo la wax ñun njaalwuñ moo tax yàlla ci cadre njaalo dafa bu leen ko sax jege maanaam lépp loo xamante ne day yëbbu si njaaloo rek soo mënee moytu nga moytu ko waxuma laak nag ngay def li nga xamante ne mooy njaalo bokk na si li nga xamante ne day tas société parce que nit ki su njaaloo keneen maanaam góor su njaaloo ak beneen jigéen te takk ko doom yi juddu seen papa yi jaxasoo fii yaay ji dem fële famille mën na am ay problème maanaam daal ci gàttal njaalo dafa ay inconvénients yoo xamante ne yu garaaw a garaaw la laataa loolu mbokk yi bala maa sori du ma dégg présenté ki nga xamante ne mooy suñu partenaire ñu koy wax Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda nekk ab entreprise boo xamante ne day yëngatu ci wàllu médecine prophétique gën a li nga xamante ne mooy Habbatu Sauda Habbatu Sauda bi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu wax ne lépp lay faj ba mu des dee ñu ngi ko maîtriser lool ci gàttal képp koo xamante ne da ngay jàmbat ab jàngoro asma jabet euh, ak yenn jàngoro yu bëree bëri yoo xamante ne sonal nit ñi nga contacter ki nga xamante ne mooy Ciseaux Habal Sauda jamono jii may wax ak seen PDG bi képp koo xamante ne yaa ngi France sa Paris gaawal nga contacter Ciseaux Habal Sauda parce que Ciseaux Habal Sauda seen wér-gu-yaram moo leen tax a moo nekk yow mu nekk Sénégal yow mu nekk France ak foo mënti nekk ci dëkk yi contacter Ciseaux Habal Sauda incha allah di ci am solution. mbir yi nga xamante ne moom laa wax ne njaalo daf koy pege ci ay loraange bi nga xamante mooy si njëkk mooy yuzhibu xayaa al insaan borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne li nga xamante ne mooy njaalo day yóbbu kersa nit maanaam nit ki nga xamante ne dafa am kersa eh, di njaalo day dem ba mu koo xamante ne njaalokat la ak koo xamante dafa mës a njaalo maanaam njaalokat mooy koo xamante ne da koy am na nag parfois nga gis koo xamante yàlla da nattu mu def ko benn yoon wala rëccu na ko baax baax defatu ko kooku nañ ko bañ a considérer ci ñi nga xamante ne mooy njaalokat mais njaalo ko suñ ko waxee dëgg mooy koo xamante ne dafay njaalo di njaalo njaalo nekk na loo xamante ne lu garaaw la benn yoon bi nekk na lu danger lool waxtuma nag nga koy def ak lu bëree bëree bëri da gis ci nit ñi ñoo xamante ne njaalo dañ koo foye duñ sax takk jabar te sax mën nañoo takk jabar mais duñ takk jabar dañuy dem di njaaloo ak ñu mel am na ñoo xam ne nag ñoom li ñuy layee njaalo mooy mënumaa takk jabar su demee oo ma xaalis bu ma ñaanee jabar moo tax ma njaalo mais xamal ne loolu nekkul argument soo njaaloo de yàlla dina teg ay daan yu métti métti métti deuxième chose bi nga xamante ne njaalo daf koy waral mooy yu sawidu wajha zani mooy kanam ki nga xamante ne day njaaloo njaalo day def li nga xamante ne ci kanam mooy lëndëm ñu bëri nag foofu dañ ciy xaw a def da gis koo xam ne naa la ah non nekkee njaalokat bi parfois mu xees suñu waxee lëndëm ak ci cadre jaamu yàlla newul ne da ngay lëndëm bi wala da ngay ñuul kukk wala genre non non gis koo xamante Euh, day julli julli bi feeñ ci moom peut-être mën na sax newul ku rafet mais maanaam leer gi muy am ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla dëgg suñu ko gisee dañ ko xam li nga xamante ne tamit mooy ñuul bi nga xamante ne euh, njaalo daf koy ñuulal sa kanam nekkul ne da ngay ñuul kukku nii wala comme soo xeesee rek kon njaaloo wala dara déedéet mën nga nekk nit ku xees mais sa kanam du am leeraange leeru yàlla bi nga xamante ne moom la yàlla di def ci kanamu ñi nga xamante ne moo ñi gëm kon nga xam ne nit ku ne war na jéem a moytu li nga xamante ne mooy njaalo parce que njaalo de day yëbbu leeraayu kanam troisième mbir bi nga xamante ne euh, loraange la ci li nga xamante ne mooy njaalo mooy yuzhibu nuural qalbi maanaam njaalo day yëbbu leeraange li nga xamante ne mooy xol xol boo xamante ne dootu mën a nangooti jaamu yàlla du respecté li nga xamante ne mooy yàlla day sofantal jaamu yàlla maanaam njaalo bi day def ci xolam nekk xol bu ñuul du bëgg ay affaire jaamu yàlla du bëgg li nga xamante ne mooy yéen bi salaay salaam ñu koy digal genre yu mel li nga xamante daal ay wàllum diine la du ko neex day yor xol boo xamante ne xol bi du baax parce que njaalo euh, dafa nekk loo xamante ne lu danger la lépp loo xamante ne yàlla daf la koo tere da nga koo war a bàyyi lépp loo xamante ne yàlla daf la koo soo ko mënee def da koo war a lépp lu mu am lu tax mu tere la ko quatrième chose bi nga xamante ne njaalo daf koy waral mooy njaalo day waral li nga xamante ne mooy alfaqr maanaam ñàkk njaalo bokk na ci li nga xamante ne moom lay gën a def mooy ñàkk nit ñi nag côté boobu tamit dañ ciy xaw a am erreur xam dana nit ñu bon ñi ngi njaaloo nangam sangam mais ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla ñoom dañuy gën di waxal dañ xam ne njaaloo day waral li nga xamante ne mooy ñàkk léeg-léeg gis koo xamante ne lu dugg du sotti léeg-léeg gis koo xamante ne lu mu du ko am léeg-léeg gis koo xamante ne mën na téye tey ay millions suba mel ni mës ta yor dara njaalo bokk na si li nga xamante ne daf koy waral du ma liggéey du ma gis man awma xaalis te soo leen laajoon dëgg-dëgg ñoom ñu def ñoom suñu xëyee dañuy njaalo wala mun ñoo toog une semaine te duñ njaalo duñ nangoo takk jabar duñ nangoo ba pare di bëgg seen wërsëg di yokku di mel ni nga xamante ne te xamuñ ne li nga xamante ne mooy njaaroo day waral li nga xamante ne mooy ñàkk cinquième chose bi nga xamante ne njaalo daf koy waral mooy yuzhibu karamatal mar'a maanaam njaalo day dindi valeur ki nga xamante ne mooy jigéen jigéen bépp jigéen bu valeur dangaa war a moytu li nga xamante ne mooy njaaloo jigéen amul dara lu ko gën a fort moom lu dul loolu parce que jigéen su téewee bu pom bàyyi bu am jëkkër dafa nekk loo xamante ne maanaam fierté la ci moom mais jigéen boo xamante ne sànq na boppam bu yàgg maye boppam ci àll bi ba kenn xamatul la lay ndurool kooku nekkatul jigéen boo xamante ne jigéen bu am valeur mën na nag sañse sol lu rafet mën na nekk jigéen bu rafet mais nekkul jigéen boo xamante ne am na valeur moom sax bu wéetee dina xam ne moom mii de amul valeur kon may dénk bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen rawatina sama mbokk jeunes yi ñu moytu li nga xamante ne mooy njaalo bu baax a baax a baax parce que njaalo de nekk na bàkkaar yoo xamante ne bàkkaar bu mag la de nekk na tamit li nga xamante ne mooy ñaawteef nekk na aussi tamit li nga xamante ne mooy merub yàlla kat day am li nga xamante ne mooy merub yàlla kon bépp jullit bu góor ak bu jigéen na moytu li nga xamante ne mooy njaalo fi lañ yemale vidéo bi ba beneen yoon incha allah ñu leen di fàttali rek su fekkee abonné ko nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partage tamit ba kenn mën see jëriñu nga partage ko salaamaaleykum waaw